ni mu demee te damaa bëgg ñu nag ñu fi ne nii te koor gi ñëw na. léegi léegi ba loolu. koor gi ñëw na de. yaa ngi wax weer wu metti koor gi ñëw na te dara nekku fi nag. Oh. ak corona bii damaa bëgg nag maanaam xalil mbay kooku sama xarit sama jiira waaw. sëñ may sekk sama jiira. sëñ may sekk. sëñ Mahmadan Lo. sëñ Mahmadan Lo sëñ Seexuna Jaw ba ci état su baa ci sama jiira. sëg Diéra. yaa ngi may dégg. yaa ngi may dégg. Ah, soxna ummi sama Diéra. waaw sant na xorom na moom. saw moom sama Diéra sama yaay la léegi nag moom laa bëgg nag ñu dem seeti ko borom tiraanga la. waaw kay waaw yow jabaay yow. soxna ummi saw mi ci ceeb bu léegi yow xanaa loolu dañuy xëy di dox. déedéet non non kon soxna ummi saw lan jëm rek. te yow waaw foofu lan jëm. yow da ngay ni. waaw yow géwél nga tamit ngir la. yow xanaa xamu ne giir gu yàq xoro bu diwén. Ah, wax nga dëgg yow fi ne nii fi ma yóbbu la rasa kiis jëj kiis tap sa deng jënd raxin jënd kiis a tëj tëj <laughs> déggi ndaat tas taat res <laughs> jeex ma fecc nga fi feccum xaj moo xam ne de moom xam naa bis bu demee kër soxna mi saw nga fecc ko fa dañuy génn xoolal kan jaar te nag wax nga dëgg nag waaw kan dem rek yëfi géwél moom daanaka ay kii la rek te man suñu borom dénk na ma ci kàllaama yoo xam ni moom <laughs> bu dee fen rek mën naa ko ah asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. te ah. doo wax loolu de. asalaama. ma ne asalaamaaleykum ah, wa rahmatulah wa rahmatulah. yow yaa ngi may kar. doo baal yow diglu ma rek. waaw waaw fàtte ñoo am diglu ma rek. soxna mi saw sama xarit. saw pula jéeri yaay gala sa ngi noonu tubaarkàlla. yow su ma ñëwee sa kër baar kiyonent bi danga may teral. bëgg ma fonk ma. waaw waaw. yaayu baabaa ñu waaw kay yooyu ngay dugal baax na waaw waaw waaw cim acim. yaayu baabaa ñu noonu barke yonent bi. acim bay. acim rek acim rek. acim rek. xam nga tubarkalla. acim rek. acim rek. ah damay ñëw siyaar si la nag. acim rek ndax kor gi jub si na. tubarkalla macha rek kay. yow su ma dikkee faa ma wax la loolu. loolu loolu. ma naan xam ngeen. ku ñu woo wax ummi saw la nu woo. ne ko woo ngeen door woo jàmbaar woo bete bete ah woo ku ndeyam gërëm ak famem ak waa la ilaha illallah ay loolu la nii. père Jabaay ngi nii. lii da yàlla rek ko ko man. barke yonent bi. naka jekk man toog ci biir ma ak sama sama doomu yaay bi ñu répété rek. dégg gi ngeen dugg see laa xam ni père Jabaay yaay dugg see. dëgg la kay dëgg yow. ana ana ana per ja bàyyi na moo nanu la per ja bàyyi na moo nanu la xoolal per ja bàyyi na moo nanu la per ja bàyyi xoolal man naan ko doon dundee yem ak yërëm eh kenn du ko yërëm ndax danga làq ngërëm am na bor bëri fayda bëri jom kenn yaqagu <laughs> la waa kii kan la waa Pierre waaw lonk di dox noonu sama géré gi waay jut ay gëwël la dañuy waay man de ndaxat dañuy waay ndaxat dañuy waayaan ñun da ngeen di waay waayaan fii soxna Coumba Sow moom ngeen di waay waaw waaw kii non non waay Père Jabaay waay moom man mii lay sesi affaire ah, affaire ah, sama waaw <laughs> fii du kër meeru mi sax a ah, fii de yàlla def nañ nag moom Père Jabaay waaw moom suñu kër kon yow xam nga fii kon yow yaa ma réeral nag waaw déedéet waaye nag Père Jabaay nag yéen bàyyi leen yéen def yéen boo di waayaan ba dugg ci kër gi wal kay xam ngeen ne waay waay jeex na am fi ma la jàpp sànq moo la moo neexul dafa mel ni fa ma la jàppoon kon man la fa nga jàpp baaxul ñi boo leen gisee liñ sàcc tey sax xam ne nag lii danoo may ñu ko di jàpp waaw lay la ila ah. ma faal yow la ñu koy loo lay la ila la waa père yow yaa ñu jeexal suñu garab gi di salaam ah salaam waaw tey def ngay fi guerre mooy mooy lan. gàcce de nii damay def rek gàcce day bàyyi borom topp ma <laughs> ndax xam luy problème bi. waaw man kër mère Oumy Sow laa doon dem ndax man damay def chaque année. waaw fu koor gi jub see damay dem ci sama géer ñi ay ñoom suñ may seet ah ay ñoom naa Jaw ah ay ñoom suñu Mahmadan Lo damay dem ci ñoom macha allah ñu may def def dox ay sukkur sukkur ah ay suñ ñoom Moodu Badiane suñ Moodu kebe ñoom ñëpp dañ may teral. ah salaam ñëw itam def ngay fi géer trop ñun ñii def ngay fi géer trop barki démb rong laa doon waxta laa doon laa doon wax naan kër père Jabaay faa ñu def waaw koy wax dëgg yàlla ma jaxat waay sa dem waay nga ndaayam nga toog fii yow da nga ñàkk fayda trop lan teel ma teel ma teel ma wuy ma père Jabaay wuy ma père Jabaay wuy ma père Jabaay yow waay tamit nag boo ma joxee rek ma bala salaam kañ nga may bàyyi père nag père yow en ah, père Jabaay salaam sat waaye may ubbi sat waaye kii génn ah